Modou enchaîné gauche. laay laay la la xeex de dooraat. Modou Lo da koy xool jaxaraat booy bëree ko. ah oui ah oui. ah oui Modou touché na ko. ñëwaat nañ ku cible ba dal na. ku cible ba dal na ñoom ñaar ñu ngi léew tawaat. dawal daal la xeex la ñu départ. Siteu da ah koy xool jaxaraat. ñu ngi damantey baaraam. Modou Lo da koy xool jaxaraat. te Modou Lo. ñoom ñaar ñu ngi léew taw. motivation bi mu am ci yaramam dafa doy waar. laa ilaha illallah. Modou door na ko léegi. ah non xeex na touché na ko xeex nañu. ñoom ñaar xeex nañu. dara xewagul. ñaari mbëri mbapat lañu. ñaari mbëri mbapat lañu wax nga dëgg. faaw ñu xeexaat. day xeexaat Modou touché na ko Siteu gëdd na ko. ak boobu baaxul. Modou Lo Modou Lo Siteu mu ngi xeex mu ngi xeex mu ngi xeex mu ngi xeex mu ngi xeex mu ngi xeex mu ngi xeex ah Siteu touché na Modou Lo Siteu touché na Modou Lo Siteu touché na Modou Lo Siteu na Modou Lo Modou da ko touché touché waat ko Siteu door gauche Modou esquivé tàq ko Siteu door ko la ilaha illallah jogaat sànni ko droite ñu Modou Lo dem na Ardo. C'était un combat dangereux. Modou Lo dem na Ardo. Modou dem na Ardo lu raar. Pour la première fois. Lu raar. Modou Lo dem na Ardo. Sa da ko door gauche. Modou Lo dem na Ardo. Modou topp ko. Sa door. Modou door. Pourtant Modou da ko dàq. Modou dàq ko. Lii lii lii Modou Lo def. Modou Lo. Modou Lo nii mu ko sottale. Du yoon. Allahu akbar. sept minutes de combat bëri tekk dal yor laa tekk. Siteu dafa ñëw bu ñu tekk ak dal rek bu jubloo ko. Siteu door na. Modou Lo Modou Lo gëdd na ko. Modou Lo gëdd na ko. Modou Lo gëdd na na. ñoom ñaar a ngi noonu. Modou Lo door na ko. ñu ngi xeex ñu ngi xeex ñu

te fi mu jàpp baax na. ja baax na kay waaw yow bañ a baax. si te daa jàpp bàyyi la loxo. titi la main droite bi Modou titi la main droite bi Modou titi la main droite bi di doon di di doon. lu xew lu xew dañuy bëri lu xew. lu xew. lu xew arbitre nee na lu xew arbitre nee na dara amul. lu xew lu xew

yàgg nañu faar lu xew mais mi ngi nii mi ngi nii on les images foofu ah. Siteu 3 appui la def lu xew attention attention Mbacké Modou Lo non mais attention Mbacké Modou Lo xoolal premier chute bi Mbacké Modou Lo Mbacké Modou Lo Malick Malik Malik, Malik Malik Malik Malik, Malik, Malik Malik Malik premier bi ak deuxième bi on va voir ce que les arbitres vont décider dem nañu en tout cas mais dañuy bëriwaat. mais Lamine dañuy bëri boo amee gis-gis. dañuy bëriwaat Modou Lo taxaw. parce que daf ko topp daf ko laalu wala non boppi laalu laalu pour bi ngay fii doo ko topp fii doo topp fii doo topp mbër moo tax il faut en man bàyyi naa Jamaïcain bàyyi naa jamaïcain waaw am na ku ma waxoon ni si si si dina am. man man bàyyi man bàyyi naa jamaïcain jusqu'à présent li ma wax mu am. est-ce que kii dañu ñuy ci. ah Siteu a livré un combat héroïque face à un Modou Lô courageux. la bu jëlee coow dina am moom. waaw coow dina caw dina am. caw dina am. arbitre sifle waat na. arbitre na ñoom ñaar ñu ngi leew tawaat. diggante Modou Lo ak Siteu ñoom ñaar ñu ngi leew tawaat. léegi ku ne dina téye boppam. bien sûr mais kan moo ëppale avertissement Malick. Euh, je pense que Siteu. Siteu ñaari benn. parce que combat bi Lamine dama laa ni ku force a ñàkk. force a ñàkk kay. Eh. neuf minutes de combat assez ah, super. c' deux ñaari athlètes bien entraînés bien préparés. Malick ñaari athlètes yu xam un combat épique. Malik ñaari athlètes yu xam ni seen automatisme yaram ñoko mom arbitre bi bu vigilant wu rek du doublo ah dëgg la xam nga au début wax naa la arbitre vigilant parce que dina am chute ci booru saa. bien sûr Malick yow Malick yow. ah yow. vigilance. ragal na la. ñu ngi law too. wax naa le trio arbitral il faut qu'il soit. vigilant très vigilant je l'avais dit au départ. léegi Papa Tafi sës kenn dootul joxe boppam. moo Lo ak Siteu ñu ngi doon ñoom ñaar taxaw. parce que nag bu ba temps bi jeex ñu yëkkati loxo Modou Lo coow li dina bari. waaw. waaw donte lu leer amul ci foofu parce que dans un angle da ngay am l'impression que Modou daanu na. beneen angle da nga am impression que Siteu daanu na. xoolal làmb ji xoolal làmb ji ku ne tee na boppam léegi. digal sa bopp. 10 minutes yi mat na mais taawu fa arbitre ko teewu ma ko. xoolal rek 10 minutes. ku ne téye na boppam. Siteu Modou Lo.

est très vigilant. Goudé absolu. Ah oui. Bolo a trouvé de la C'est résistance. Bolo a trouvé de la résistance. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Les derniers instants du deuxième round. O deux, deux avertissements. Au boulot, o un. Au boulot, c'est un. Ah oui, ils ont trop donné. Ils ont beaucoup donné. Même le pointeur, il donne une Ah oui. Mais comment il a fait l'air te xoolal bi ñu ci té daf ne taral ci timbu jara main droite Modou Modou Lo ah, a déjà du mérite il a tenu la dragée haute à modulo. C'était su fekkee deuxième mi bi deuxième mi-temps bi jeex Modulo Modou Lo daan na Siteu. Modou conserve son titre de roi des arènes. am mérite pire. Modulo conserve son titre de roi des arènes. avec des contestations dans la polémique mérite pire. avec des contestations. tu n'as pas de mérité.